Amadou Ba Aïcha ak gouvernement ñoom démb nag ñu nga doon jànnoo ak taskati xibaar yi indi nag seenu leeral ci coow li nga xam ne moom moo jot a xew ci réew ko Sénégal nguur ak Sénégal nag jamono ji moom ma ngay leeral yëf yi bu ñu sukkandikoo rek ci suñu jantub réew bokk na ci nag ponk yooyu ñu fa dëxañ loole bokk ca signal Walfadjri bi nga xam ne rek jot nañu ko dagg waaye tamit gouvernement bi indi na lan moo war a rek ñu daal di amal lu ni mel ba ñu si jógee itam waxtaane nañ rek ponk bu ñeel jóge ba ñu daane soo ko ñaari atu kaso enquête ba ñu fas yéene ubbi ci coowal nervi yile ak leneen loo xam ne daal laxasu na ca bokk na ci nag loo xam ne daal euh, ministre de l'intérieur indi na ci ab leeral naka noonu tam ci limaano jëwrin yi Ismaïla Madior Fall Abdou Karim Fofana ak euh, maître Sidiki Kaba Direct News yéeni kaay moom ci coow loole la mu wax nag bokk na ci rek ne daañu nam amal benn nga xam évaluation boo xam ne loolee la leen tax a jóg rek euh, xayma gi euh, ci wàllu ko yàq-yàq yi doon loole euh, ngir nag ñu xool yan rek dogal la ñu fas yéene jël kàddul nag yoo xam ne Amadou Ba moom moo ko fa daal yëkkati dellu si waat tam ci mortal combat bi nga xam ne daal Ousmane Sonko maa ngi ko doon waxtaanee mu jàpp ne loole nag moom moo amoon laata rek fitna gi di juddu ci réew ko Sénégal beneen ponk bi nga xam ne tam daañu ko ci waxtaanee ci tukki yëglekaay yi la bokk na ci li nga xam moom lay lan foo yéeni kaay xëy a ne fang moom nag nañu gouvernement bu Sénégal moom jamono ji ah, ma ngay sarse bu baax a baax ndaxte nag bu ñu koy xayma am na ci rek élément yu bëri yoo xamante ne ni ay indice yu la ñu rek daal di fësal yoo xamante daal la tax nañu jàpp ne ah, manipulation gi bëri na lool jamono ji ah, ci kaw autorité bu état bu Sénégal waaye tamit lépp loo xam ne rek mënees na gàkkal jamono ji seen noppa doxalin le témoin yéeni kaay moom ci coole nag ne na général Amadou Ba indi na nag ab tontu ci coolu ni mel Ismaïla Madior Fall Fall dellu si ci lan moo tax Ousmane Sonko tegaguñu ko loxo Antoine Félix Diom moom la mu wax lan daal bokk na ci ab enquête bu ñu fas yéene ubbi ci ab yi nga xam ne daal ñoom yoroon nañ ay ngànnaay ci léegi manifestation blocus bu kër Ousmane Sonko lu mel yëpp yéen te mooy ni kay xëy na rek ne ko fàng ci xëtam bu njëkk ca biir bés bi le jour nee nañ nag limaanu jëwriñ yi la mu wax daal moom mooy ñoom natt nañ bu baax a baax a yëf yi ba tax na nag seenu pexe daañu li nga xamante ne daal moom bëgg a salfaañi réew ko Sénégal ak na muy doxee équipe de com bu Amadou Ba na nekk tey jii li nga xam ne daal bés bi le jour mu ngi koy jàngat ci xëtam wu njëkk Walf Quotidien yéeni kaay moom la muy waxtaane nag Ousmane Sonko ku ñu mën a attewaat la ci xayma gi jàpp leen daal ni bokk na ci loo xam ne daal Sidiki Kaba mu ko fay waxtaane ak plainte bi nga xam ne euh, ñu ngi koy waxtaane daal ca mbiru euh, Cour pénale internationale nañ nag ñoom ña nga xam ne daal ñoom ñoo koy wax jamono ji ñoom amuñu euh, li nga xam ne daal moom mooy xam xam ngi waaye tamit amuñu doole goo xam ne war na mën a tax ñu daal di amale lu ni mel le peuple yéeni kaay moom na nee na Ousmane Sonko bu ko kenn fàtte daal kenn acquitté wu ko daal ci coowal viol la gile di tax sax tegaguñu ko loxo jot nañu ko leeral nag na gën i démb corruption de la jeunesse bokk na ci li nga xam ne ah, ma nga woon ca biir ordonnance de renvoi bu ñu sukkandikoo ci suñu yéen naataango record yéeni kaay ngir wax ci wàllu kacagacaram bokk na ci rek jamono ji nag Formose Mendy Ismail Jacobs ñoom ñëpp xëy rek ne fàng jamono ji rek ci ëttu ko yëglekaay bi ñu ngi ci jàpp rek ne gaynde ak Sénégal nag ñoom ñu ngi waajal bu baax a baax rek li nga xamante ne ni